aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sadit lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraay assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julli ni mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant sëriñ Touba sunu yaakaar yi teeg ëllëg waaye itam di ñaan alxalifatul am li tarixatil muridiya cheikh Mouhamadinil Muntaxa ayadahu llahu wa nasara wa aafi sawara mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Sëñ Tuubaa gépp waaye itam noonu la ñuy siyaaree bu baax kilifa jotaay bi di Sëriñ Mbàkke Daba Sarr mi nga xam ne mooy xalifa Sëñ Abdou Rahman Mbàkke ibnu borom daaru muxti maam Cerno Birahim waaye itam di ziare bu baax a baax sëriñ Modou Maxtaar Mbacke mii nga xam ne moom la ñu feggool di doomi sëriñ Abdourahmane Mbacke moom maam Cerno Birahim ñi teew fii tey ci daaru Mannaan war a waxtaanewaat dëkk bu tedd bii di daaru naan nga xam ne mi ngi bokk ci dëkk Serigne Touba yi ñoo waxtaanee cosaanul dëkk bi ci naka lañ ko ci naka lañ ko sance ak itam anamu sancin bi loolu mooy thème bi njëkk bi ñu war a waxtaan war cee ànd ak sëriñ moodu euh, maxtaan Mbàkke mi waaye itam ñaareel mooy ku ne xam ne borom daaru muxti doom jii di sëñ Abdourahmane Mbàkke moom lañ rafaatale woon dëkk bi waaye itam nan la def ba dëkk bi tàbbi ci ay loxoom ba tey mu doon loolu loo xam ne moomeel la ci biir ak njabootam kon loolu mooy ñaareel waxtaan wi waaye itam ñu ngi feggoo ak suñu baay euh, sëriñ Mbay Juuf ak itam suñu mbokkum taalibe sëriñ naa Joxaane xam naa ñoom ñooy ñëw ak ñun ci lu aju ci ñëw dëkk bi ci loxol sëñ Abdourahmane Mbacké waaye waxtaan wax kàddu yu njëkk daal mi ngi tàmbalee ci sëñ Modou Maxtaar Mbacké ci cosaana dëkk bi ci sanc ba ak loo ko waral xam naa ngi njëkkante ak waxtu ndax ku ne xam ne waxtu xat na sëñ Modou bu nuyoo pare day duggaale ci laaj bi cosaanu dëkk bi ak num ak num tàmbalee ba suñ jon yàlla tey wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon sëñ Modou bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilah eh, yéen mbokk yi ngi leen di nuyu ci turu a ah, te ñu ngi leen di nuyu te ndax mën naa fàttali ma ndax ah, ñi nuyu mbooleem ñu fi teew ñëpp tey jiite ci nuyoo bi ah, ok waaw ah, ñu ngi nuyu mbooleem ñi déglu ñu seetaan ñëpp te tàmbalee wax ji ci ñaanal sëñ Mouhamadul Mountakha ñi nga xam ne mooy xalif général de Mouride yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ah, di ko ñaanal sëriñ Mouhamadul Basir Antañang ñu xalifa borom daaru di ko ñaanal sëñ Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Abdourahmane ñu ngi leen di ñaan yàlla may leen fan yu gudd ak wér-gi-yaram ba li ñu liggéeyal lépp sëñ bi yàlla man loo leen ko bañ def ko yàlla man na ko yàlla na ko def waaw leen di nuyu te nga xam ne lii eh, ñi dajale fii tey jii mooy di waxtaane ci mbirum daarul mannaan naan daarul mannaan nag waxtaan yi waxtaane ko baax na lool ndax ñu bare bari dañ koy romb rek te xamuñu maanaam ni mu demee mm-hmm. ba ñaare eh, waxtaan yu mel nii dana ciy baax ñu bari ñu xamutoon xam ñi nga xam ne xamoo ne ñu fàttali leen waaw ndax am na ab dayo lool ci yoonu murit waaw ni ngeen ko xamee borom daarul moxti moo ko sanc waaye xam nañ ne ah, Serigne Touba bi mu fiy jóge di ci géej gi bàyyi borom daaru ca eh, Mbàkke Baari sëñ bi demee maam Thierno dafay jóge eh, ñëw Mbàkke Mbàkke Bawol eh, bi mu ñëwee Mbàkke foofa taxutoon mu yaatu fa lool yaata luñ ko fa woon ba na mu génnoon Mbàkke tuuti sanc fa waaw ñàkk yaatal gi nag moom sax xëy na ñu bari ñu ngi ci ŋàññi ña ko ña ko ña ko fa xartaloon waaye eh, ñooña la toxoon ñu def ko sama yaakaari bopp bañ sëñ Tuuba wala bañ maam Cerno taxutoon ñu xatal ko ndax yooyu jamono eh, ñu baree bari eh, jege sëñ Tuuba da leen di indil ay coono ndax xam ngeen tubaab yi moom booba ku ko jege rek lee daal di indil ay jafe-jafe ndax boo gisee tubaab yi sonaloon ko dañoo gis ne ñoom tubaab bi ñuy coloniser daanaka réew jullit yi ci lañ gën a amee problème ci colonisation bi te réew jullit ñaare ña doon yëngu ci mbirum diine ñoom ñoo gënoon a am résistance ak bañ te ñañ fa fekkoon loolu loolu lañ xamoon ba ma taxoon fu ñu dem rek Euh, kilifa yi fa nekk te yëngu ci diine dañ leen di ragal ñu ñu def ne ñeneen ñi ndax loolu aw na ci Algérie waaw Algérie googu gis ngeen ko Abdul Xaadir Aljazairi waaw dañ ko mujj exilé sax mu dem ba Damas Abdul Hamid euh, ma nga fa woon euh, Masila Haaj ma nga fa woon waaw boo demee libi Omar Muxtaar ma nga fa woon Euh, di bañ euh, ba ci yeneen boo demee ba Soudan xarakaat xaraka al mahdiya ma yëpp maanaam dañ doon bañ loolu nag la tubaab bi xam ba bu ñëwee fi barab kuñ jàpp ne da nga yëngatu ci diina duñ nangu nit ñi jege loolu lañ ragaloon ci sëñ Touba moo toxoon ñu doon ko sonal rawati nag bi nga xamee ne nag dafa am benn buur bu jébbalu ci moom ca lañ gën a tiite nag ne ah kii kat moom sooy boo ñu gaaw jóg ci mbiram suñu jógul rek dana ànd ak eh, waa réew mi eh, xeex colonialiste loolu moo toxoon ñu sonaloon ko waaw ba loolu moo toxoon ñu jëli ko fi yóbbu ko ci géej gi waaw léegi nag eh, maam Thierno bi mu nekkee foofu sanc foofu yàgg fa dara mu am ay loor yu ko fay dal mel ci njaboot genn ñi di wàññi ko ñenn ñi di feebar bi mu ko seetloo ñu ab ku xam mbirum jinne ne ko foofu day yoonu jinne wala defare bu jinne boo fa jógee yaakaar na ne loolu dana dana dana saafaraw ci la fa jógee dem fu ñu naan guy ngoraa foofu la sanc ba am ci lenn ci njabootam sax foofu lañ gënee àdduna muy muy borom daaru waaw guy ngoraa waaw moom boo génnee soriwut ak Mbàkke daal waaw ndax bi mu jógee Mbàkke fi mu sanc héliport waaw mu ngoog waaw mu ngoog foofu la waaw foofa la nekk nag ba lettre bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu sanc si daarul ma naan foofa la ko fekk ku ñuy wax Ablaye Ndour moo ko jox lettre boobu sëñ baa ngi ci géej gi jamono fay na nag boobu moom xamuñu ci sëñ bi daar ndax boobu xamuñ ci moom dara daal waaw boobu sax am nañu daa wax naan génn na àdduna waaye moom la lépp moom taxut moom mu découragé daal mm-hmm, mm-hmm. ba leetar bi ñëw leetar bi sax am na yeneen wax yu sa nekk mm-hmm. xam naa jotaay bi dafa xaw xat ndax waxtu wi jege du fi xaj waaye ci la ko joxe ndigal mu ñëw sañ si sañ si daarul man naan euh, nee nañ keroog bi ñu ko ko waxee fas saasa la woo sëñ maxtaar binta loo na ko nga daal di dem daaru ma naan euh, te boo demee ñu nësër fa ak kër ak dëkk ndax sëñ Touba bi mu ko yónnee leetar bi tegtal na ko fa nga xam ne bu ñëwee fi lay sanc guy tàggoo la ko waxoon waaw boobu am na ñu daa seet si ne ko fañ daa tàggoo bu ngeen demee ngeen sanc fa dëkk tudd ko daarul ma naan waaw ba loola amee nag ci la borom euh, daarul moxti daa di ñëw sanc si daarul ma naan waaw bi ñëw fi ñëwee itam nag amoon na fi ay jafe-jafe ndax ñu fi fekkoon at yu jëkki waaw kay at yi jëkk yi bi ñëwee am na fi ay jafe-jafe lool ndax ñuy fekk ñuy fekkoon dafa mel ne da xataloon daal ba yàlla dogal na fi xeex na fek ñoom ay xeex yu mette métti yoo xam ni maanaam rey nañ ci dongaam yi ñaari donga ñañ doon xeex itam yàlla dogal na ñoom it seen ñaari nit faatu nañ ci ci xeex bi mu doon xeex bu métti euh, yooyu yëpp daj na ko fi kalaame nañ ko fii di ko demloo ay Cees muy dem ak dikk loolu lépp daj na ko fi mu nekk fi nag yor njabootu Serigne Touba gi waaw booleeg bay ak jàngale. Mm-hmm. mbay mi mu daa bay fii ci la daa dundale njaboot gi fi nekkoon te yooyu jamono daanaka njabootu Serigne Touba gépp ñu ngi fi. Mm-hmm. moo xam e, doom yeeg soxna yee taalibe yi yoonu muritoog yi jàng alxuraan yi jàng xam-xam mm-hmm. boobu ñëpp ñi ngi daje fii ci maam Thierno waaw fii la nekk ci loolu Eh, ndax lii daaru manaan lii lii sànc boobu mu war a nekk ci eh, ay boori mille neuf cent hmm. waaw ay mille neuf cent la léegi nag bi nga xam ne dem nañ ba eh, mille neuf cent trois ci le vingt six janvier mille neuf cent trois ci la Serigne Touba ñu fekk ko fii hmm. waaw fekk ko daaru ma naan bi ñu bokk fi nekk kër Serigne Touba gii ngeen di gis nekk sow da jumaay manaan ma hmm. foofu moo doonoon kërug Serigne Touba maam Thierno foofu la nekkoon waaye bi sëñ bi ñëwee da ko faa bàyyi ñëw sañ kër gi suñ càmmoñ nii nga xam ne foofu moo doon kërug borom daaru waaw foofa la maam Thierno nekk fii la nekk ak Serigne ñeenti weer yi nga xam ne moom la fi nekk ak li tegal bi Serigne Touba nekkoon fii ñoo fi bokk di fi nekk ba fi ko fi yóbbu ko gànnaar waaw fii nag la Serigne waaw fii la bàyyi ko dem gànnaar mhm. fii la ko mbaaxaan fekkoon itam mhm. waaw bi ko wooyee mu bañ wuy ji tel bu ne ñu def ko mhm. euh, jéem a naxante mbaaxaan bàyyi ko waaye mu bañ fii ñëw fii la ko fekk ma manaan gi yooyu mu doon def yëpp fii la ko doon defee ci kër gi foofu la fi nekk ba ni mu demee ci géej gi bi nga xamee ne jóge dem na dem dem na Murtani waaw bi nga xamee ne dem na Murtani ba ñëw la borom daaru jóge fii dem mbakke Kajoor ndax dafa am seen waajuru fa ne jox Cheikh sëriñ bi jox ko ndigal mu mu mu dem fa di ko toppatoo. bi nga xamee ne sëñ boobu génn na àdduna ci la boroom daaru di ñëwaat fii sëñ bi ne ko faral sanc daarul Muxti foofu la doxee dem sanc daarul Muxti fa la nekk nag daarul Muxti la nekk. ba ci eh, daaru ma naan gent lu ëpp fanweeri at hmm. waaw ba borom daaru jóge fi hmm. ah, bi mu fi jógee nag la eh, sëñ Abdourahman hmm. ah, ñu bari dañu jàpp ne sax sëñ Abdourahman dafay ñëw sanc si wala daf koo daf koo sàkku waaye sëñ Abdourahman sàkku wut sanc si daarul ma naan waaw ndax man ku ñuy wax Thierno Xayta Diop nga xam ne maanaam muritunu borom daaru ak muritam ak muritam mu mu mu mu mu mu ko fii ci daarul ma naan moo ma nettali wax ma ne ma moom ak sëñ Abdourahmane ñoo ànd bi ñu ñëwee fii dem ca sëñ Mbacke Bousso di ko nuyu ci ne bi ko sëñ Mbacke Bousso di ko wax ne ko na nga dem ca sëñ Modou Moustapha nga dem nuyu ko nee na lool ci kanamam la waaw nee nag bi nga xamee ne sëñ Mbacke ma sëñ sëñ bu Bousso digal na ko loolu mu daal di dégg ndigal lool daal dem boobu sax yaakaar naa sëñ Moustapha sëñ Moudou Moustapha nekkul tuuba ci dëkk mi xaw ma am na daal fu mu ko fekk waaw waaw mhm. yaakaar naa du Taïf yaakaar naa Taïf Taïf ah, naa muy Taïf daal am na benn dëkk daal bu mu ko fekk mhm. ba mu demee eh, nuyu sëñ Moudou toog ak moom sëñ bi dalal ko ñu toog ba ca ngoon mu woo ko dama la doon laaj daal ba xam yow du doonoon sey tànk danga nga am soxla sëñ Abdourahmane ne ko déedéet man di wax dëgg yàlla mu benn soxla mu soxla bi ma def naa ko mooy ñëw nuy si mu ne ko waaw ah, na nga dem noppalu ji ba fay fan mu ko ne ko euh, léegi de mën naa laa waaye nag dama la doon laajaat ba tey ci diggante yi nga fi toogee am nga beneen xalaat ci yitte joo am yoo xam ne xëy na keroog ba ma la koy wax amoo ko woon te nga am ko nga wax ma ko. sëñ Abdou Rahmane na ko man wax dëgg yàlla amul benn yitte la ma la waxoon daal moom nuyu si la rek moom fi indi woon ci la ko joxe nag mu ñëw sanc si Daarul Manaan gii waaw loolu moo waral sanc Daarul Manaan waaw ko waxee nag xam na ne sëñ Abdou nangu ndigal rek moo ko ci dugal waaye booba xam na ne sanc gi du lu yomb ndax dëkk boo xam ne bii maanaam gent na lu ëpp fanweeri at. nga ñëw ba koo dekkalaat di ko sancaat loola la muy laaj ci mbooloo ak ay matériel lool lu jafee am la waaye comme moom euh, day wéy ci ndigal bañ ko santee lool rek da ca da ca daal di nangu waaw ba mu demee nag la daal di waaj ànd ak euh, ay taalibeem ñi nga xam ne ñu woon moom ah sancaat bi yaakaar naa mille neuf cent Euh, quarante quarante six la yaakaar naa quarante quatre. 1944. la ñëwaat fii bi muy ñëw nag mu ànd ak dongam yeeg soxna yeeg am ci taalib yoo xam ne sax sëñ Abdourahmane moom moo dem ci ñoom sàkk ci ñoom ñu ànd moom ñëw. Hmm. bàyyi sëñ ma Diop chef de village bu Darou Manane bi ca bokk. Hmm. Euh, mu daal di ñëw ànd nag euh, taalibe yooyu ak donga yaak ñëpp bu ñëwee nag sañ ci Darou Manane. waaye sanc ba itam sëñ Moudou Moustapha bi nga xamee ni sëñ Abdourahmane teew na euh, moo ko ci jàpp man nañ ne sax moo ko sancal hmm. ndax moo yable ñu daal di koy defareel fii ay néeg hmm. mu daal di yëkkati ab dund bu doy yónnee ko sëñ Abdourahmane daal koy yónnee aw fas hmm. waaw fas woowu moo taxoon ñu daal taalib ñu tax Abdou Ndiaye sant fas woowu moo taxoon naan ko sant ndax moo daa toppatoo fas wi xam nga loolu wax dëgg yàlla ndimbal la waaye ab junj la itam ndax euh, dimbale na ko waaye la tax mu jox ko fas mooy ndimbal na ci fekk loxol borom waaw waaye nag sëñ Abdourahmane yàlla dimbale ko bu ñëwee mu ànd ak taalibe yu mën a liggéey yu nangoo liggéey te déggal ko lool yaakaar naa ne at mi fi jëkk bay lam bay rek yaakaar naa ne la ko sëñ ba joxoon yaakaar naa lam bay sax ëpp na ko fuuf ba mu cay dimbalaat ndax daara dañoo dekkal daara yi fi nekkoon ferto daaray ferto ak daaray ndaamaatu jenn ji nekk mu fa ay jëwriñ teg si te ñooñu doonoon ay jàmbaar yoo xam ne yii ñu nangoo liggéey ñu liggéeyal ko fi waaw ci loolu la nekk waaw foofu daal euh, ci lessin sëñ Abdourahmane mm, mm. waaw fi la nekk nag euh, ba jóge fi bi fi jógee nag xam naa ne sëñ Mbay ñoom dañ leen euh, wax xam naa ne nekkin wa ak ñu euh, mu doon dundee ak taalib yi waaw waaw waaye daal ci cosaan li daal loolu daal ci gàttal comme waxtu dafa xat loolu daal ci gàttal moo doon cosaan ak ni ko sant waaw kon nag sëñ Della jërëjëf euh, jërëjëf euh, jërëjëf sëriñ Modou Makhtar Mbacke ibnu Cheikh Abdourahmane ibnu borom Daarul Muxti kon niñ déggee kàddu yi kon ñu ngi fàttali ñu ngi ci Assalaamy TV ak Assalaamy FM ci seen jotaay kàngam 18 safar 18 kànkam ànd ci seen mbokkam taalibe Tamsir Gueye ndongal borom gaawaan kon déglu nañ sañc daaru daaru man naan ca sañcin wa ak coono ci borom daaru jànkonteel ak itam li fi xew lépp ci xeet yoo xam ne lu lu mot a waxtaane waat la ak itam na mu gente ba Cheikh Abdourahmane ñëw sañcaat ko ci ndigal Simon Moustapha ak la ci xew lépp kon loolu yaakaar naa liñ jot a xam eh, am na solo loo xam ne mën nañ cee téye lu bare bare bari ndax nit a ngi jóge tubaa jëm Mbacke baa jóge Mbacke jëm tubaa te te umpale na daaru mën naan kon lu am solo la loo xam ne wares na ko bàyyi xel baax a baax te itam duggal nañu tuuri ci Sëriñ Abdourahmane xam naa foofu la ñuy la ñuy la ñuy duggee ci Serigne Cheikhouna Joxaane mu duggal ñu nag ci dëgg-dëgg nekkook Serigne Abdourahmane fii ci daaru fii daaru mën naan aw aw nekkiinam ak itam façon tarbiyaam ak façon liggéeyam boo xam ne amal na ko fii ci daaru mën bu bu daanee rek kàddu njox suñu bàyyi Serigne Mbaye Diouf mu gën ñëw yaatal na bu baax a baax ci euh, kàddu yooyu bisimilah sëñ Seexuna Joxaane. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, yi tedd ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di dal ci nuyoo bi suñu kilifa gu baax gi ñu toogal sëñ Mouhamadul Makhtar moom sëñ Abdourahman moom borom Daaru Muxti di jaarale ci moom nuyoo bi mu jàll ba ci sëñ Mbàkke moom sëñ Abdourahman. waaye ba ci sëñ Basiiru Anta Ñaŋ ba ci Seex Mamadul Muntaqa ñoo ngi nii waa asalaamee jël nuyoo bi te ko loxol sunu bàyyi sëñ Fallou Galass Syll la ak euh, sëñ Tamsir ñoo ngi leen nuyu bu baax di la ziyaara di sant bu baax ci jotaay bi fii moom daanaka mën nañu ne dañoo waroon toog di lu sëñ bi rek bu ko defee mu def waxtaan wi ak Baye Mbaye mi nga xam ne lu bari ci li muy wax ci Sëñ Abdou Rahmane lu mu fekke la waaye Daarul naan di dëkk boo xam ne ñu ko sëñ bi waxee dëkk bu dëkk bu mat a xam la ndax dëkk boo xam ne bi sëriñ bi jógee ci géej gi mën nañ ne bi mu nekkee ci géej gi moom lañ xam dëkk moom sanculu boo xam ne dafa dig dafa dafa dafa santaane nañ ma sancal dëkk sàngam xamaatuñ ci histoire dëkk boo xam ne bi si nee ci géej gi na ko ñaaral bi itam ay firnde ngi wane ne bi mu jógee ci géej gi fii la bëggoon a fekk njaboot gi ndax boo demee ci marché borom daaru bi am na fu mu wax ne euh, bi sëriñ bi joxe Abdoulaye Ndour leetar bi mu indil ko borom daaru jóge Congo da ko wax ne ko sancal ma ëpp dëkk te baagee na nga ko tuddee daaru te nga bënd fa am naanu te yeesal diine te toog faxaar ma maa ngi ñëw ma lay wax ne Cheikh Bamba daal di yónni Abdoulaye Ndour mu jógee Congo ne jalañ ma ngay luur jox na ko fay leetar yu ànd ak sërru tàggale ko balaa fegal ko saru ne nga sanc fa ñu naan guy tàggoo tuddee ko daaru foofa naan duñ tàggoo te bënn fam naanu te yeesal diine te xam ne maa ngi daal di ñëw fil xëy loolu moo ma tax a nga xam ne benn fam naanu ta toog taxaw ne maa ngi daal di ñëw moo tax bisi bi ñëwee jógee ci gi ba woo borom daaru ndar ba waxtaan ak waxtaanam nga xam ne fukki fan ak juróom la woon ci weeru weeru baraxlu nga ne moo waral màggalu daaru gi ko demal xaar ma daaru ma naan maa ngi ñëw nga xam ne fii la ceerno ñëw toog xaar ko ba mu ñëw daaru salaam te rakkam ju baax ji maam Cheikh Anta mu ganale ko nganam googee ba ngan nga jeexee diggante bi ngan ngan gi di am sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ne ci lañ yeesalaat kër gi daarul ma naan ba mu jógee ci ngaan nga ci la daal di ñëw Daaru Manaan gi nga xam ne lim nekkaat fii ci Sénégal euh, muy juróom-benni weer la ci ëpp fii la ko nekk. diir bi mu fi nekkul mooy diir bi nga xam ne kër gi daa lakk mu génn dem ndaam ñu defaraat kër gi mu dellu siwaat nga xam ne yeesalu kër googee lal yi ñu doon jënd mu indi wax yëfi mbaaxaan yi nga xam ne moom la suñ mu ngi ko doon junj léegi nii. kon day mel ni loolu mën naa xam bu baax a baax a baax euh, bi itam mooy Daarul Manaan day dëkk boo xam ne euh, dëkk bu sëñ Tuubaa fonkoon la lool ndax Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana mi ngi nettali bi nga xamee ne sëñ bi jóge na ci géej gi ba ñëw Daaru Salaam ba ñëw sanc fii e, nekk gi nga xam ne sëñ bi nekkoon na ko fi ndax mu ngay junj ci biir ginnaaw ba bi mu duggee ci mbirum borom Daaru Moxti ba e, tagg tagg bu méttee métti mooy wax ne wala tasal an an Ibrahim alladi huwa alladi taraka alcheikh alayaala wal amt wal amtiata bi yadihi ayaama gaybatihi fajtamaat alayhi ashaabu cheikhi ahlulxalli wal aqdi yar asuhum cheikh ahmad ndumbe di wax ne bul laaj mbirum cheikh ibrahima mooy ki nga xam ne moom la sëñ bi dénkoon njaboot gi ak mboolem lu mu am teg ko ci loxoom ginnaaw bi mu nekkee ci géej gi mboolem yoonu murid yëpp dajee ci dajee ci ci ci ci borom daaru ñuy defe ko dindi euh, sëñ ahmad ndumbe doonoon jawriñ ji waaye gis nga mu wax ne ca biir wa kaana yazhabu wa yaati wa yunabbihul wasnaan wa aqaama qiraatu qiraatu awlaadi cheikhi xata xafidu fi muddatin qalila qabla rujuhi cheikh lam yanqarim cheyun min amri cheikh yadribu bihi lmathalu fi l istiqaama nee na borom daaru euh, moom jëm boppam na ba njabaru sëñ bi fi bàyyi woon ñu mokkal alxuraan avant sëñ bi ñëw ci bu gàtt nag njëkk sëñ bi ñëw nga xam ne dara lu suñ bàyyi woon daal loo xam ne fekk na euh, dara sikk ci amul lépp rek def na ko nam waree téye na ko nam waree ba sëñ bi ñëw euh, junj na itam ne sëñ bi fi la njëkk a jullee hiit muy euh, jullik tabaski sëñ bi itam ko na xam na ne fii la njëkk a bis bii di 18 safar muy màggalu Tuubaa fii la ko njëkk a fekk donc xam nañ ne booba màggalagu ko waaye am na lu daan xew natt yi bu masaa ñëw dañuy wax natt yi suñ borom da koy ful waaye fii la ko njëkk a fekk ci dëkk bi Daarul Manaan waaye fii ci Daarul Manaan tam fi la njëkk a gàmmoo ginnaaw bu ci géej gi gàmmu gu rëy xam ne sëñ Moustapha day wax ne bokk na ci li tax tubaab bi fexelaat ko yóbbu ko gànnaar ndax gàmm gu rëy goo xam ne mbooloo murit yëpp fi lañ gàmmoo ba tubaab bi amoon ci am tiit lool ci wax ne kii day mbooloo mi ngi gis maan ak moom bu naree jogaat daal suñ kaw nar nañu am problème wax nañ ne bokk na ci li tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jëlaat ko yóbbaat ko ci géej gi beneen bi mooy fii ci kër gii am na liggéey bu rey bu mu doo liggéey yonte bi aleyhi salaatu wa ci géej ga muy mbind moo xam ne ci ay gaal la nekkoon fii lañ ko gas ci kër gi ba mu xóot ñu ñu ñu ñu suul ko fi euh, loolu la cay firnde mooy bi kër gi lakkee borom daaru ñëw doon ko man li koy mettitlu ne ko liggéey bi daal li ma naqari ci lakk gi mooy liggéey bi ngay liggéeyal yonte bi salaam daal mu nar a yàqoo noonu mu ne ko denc nañ ko fi yàq yëgul bokk na ci itam yonte bi aleyhi salaatu wa fekk ko fi gàmmoog moom gàmmu googee ndax moo waxal boppam ni yaqini ilal jannati maa lay si yoxmadu rasulun karimun baytana saar ahmadu te xasida googu da koo da koo da koo wutal maanaam ab dat ndax tënk bi mooy yow ma mawlidi ama ak sasin ama ak sasin nag mooy 1321 si 1320 la ñëw 1320 euh, ca baraxlu wala ñëw 21 jeex mu dugg ca tam xarit wa ñu dugg 20 euh, 21 tàmbali kon ca gàmmu ga 1321 la gàmmu googa moo tax ama ak sasin jooju mooy firndeel loolu moo tax lu wér fii la loolu amee woon ci ci kër gi beneen ba itam mooy euh, mbaaxaan fii la ko fekkoon ñu ngi ko doon wax léegi suñ baa ngi koy wax léegi fii la bëggee xas xaside rabbi maa yasanul azaan xat fajaa ci song moomu ko mbaaxaan songoon ànd ak nasaraan bi waaye fii la bindee xasida ak yaa jumlatan qad fallasu bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu awalidu euh, ak xasida gi ma doon wax léegi muy yaqini ilal jannaati maa laysa yuhmadu fii itam mooy daara ji nga xam ne te la doon jàngale njabootu sëñ Tuubaa gi boo demee ci marché si Moussa bi si si Moussa day wax ne ci fukki atam la wattu alxuraana fa daaru man naan fasdaaka baana ci fukki at la wattu alxuraana fa daaru man naan fasdaaka baana kon fukki fii la wattu alxuraan sëñ Fallu fii la wattu alxuraan fii lañ bindee seeni kaamil eh, kaamil si Moussa wala xaaj ba dem na fekk sëñ bi ci géej gi sëñ Fallu moom bi sëñ la la ko jëbal ab kaamilam njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp fi lañ nekkoon tam fii mu moo tax mu Mountakha doon wax ne fii mooy daara ju mag ji ndax première génération bi nga xam ne ñëkk topp sëñ Tuubaa deuxième bi fii la leen borom daaru waajale bi sëñ bi nekkee ci géej gi kon dëkk la bu am euh, cosaan boo xam ne loolu luñ ci doon dolli la ci waxi sëriñ bi bu dee si Abdourahmane nag bi mu ñëwee fii 1944 sancaat dëkk bi euh, ba nga xam ne ne yu metti la woon booba ndax 44 45 boo ci topp te ku na xam ne ne 39 45 am na lu amoon muy guerre mondiale kon ci digg guerre mondiale bi ci la temps ci la sanc fi nga xam ne moom mooy Daaru ma naan waaye mu doon koo xam ne booba itam ay atam bëreewut loolu ndax gën gaa bëri 35 ans wala 36 ans la am ndax 1907 la feeñ jamono kon boo ñëwee ba 1943 booba kon day mel ni ay atam at yu néew la amoon do eh, hmm? fii la feeñ ci dëkk bi waaw eh, loolu sax ci histoire la bokk mooy dëkk bi ki fi njëkk a feeñ njabootu borom daaru gi mooy soxna bu sa Mbàkke mooy 1904 booba sëñ baa nga ci ci yéen sëñ eh, Abdourahmane feeñ fi 1907 booba sëñ baa nga ci yéen ba mu bindee leetar yónnee sëriñ ba ci yéen fekk sëñ ba ne ca eh, këram ga ñu wax Daaru Rahman mu ne nañ ko tudd Abdourahmane 1908 sëñ Abdou Khoudoss feeñ fii jamono borom daaru bindaat leetar yónnee sëriñ bi mu ne nañ ko fekk mu nekk ci këram ga ca Daaru Khoudoss ga ca ci yéen mu ne nañ ko tudd Abdou Khoudoss sëñ Abdourahmane moom mu sañcoon maam feeñe woon jamono fii nag moom moo ñëwaat yeesalaat dëkk bi ni ma ko waxee ci jafe-jafe yooyu mu ko yeesale waaye ba mu ñëwee itam nag euh, ànd fekk taalibe yi sëñ bi nga koy junj léegi jafe-jafe ya mën nañu yàggu ci la borom daaru woo juróom waxoon ba mu ñëwee daarul manaan gii ba mu nekkee guy ngooraa te ñu amoon jafe-jafe dund ci at yooya bokk na ci la bu fekkee bay moo koy maye duutuma ko ñàkk day mel ni jom joojo nag moom suñu dafaan da koo da koo da donn ci moom ba tax nag gis nga daara yam fi sanc Euh, Baye Mbaye dina ci ñëw moom mi nga xam ne moo teye woon euh, daana fi mbay mbay moo xam ne wax dëgg yàlla Baye Alaaji Ka nettal na ma ne maanaam hangar bi mu daan bi mu daan bi mu daan def fii foo masaa toll ci dëkk bi da nga koy seen daanañ dem ba nawet di bëgg a jot fu nekk lañ daan jóge ñëw di leb si aw jiw léegi boo ñëwee dana lebal nee na bu déwénee boo fuyir boo ñëwee di di lebaat dalay lebal waaye naal da nga fi bàyyi dara da nga fi wut loo fi tayle nee na ay fetal ak lañ fi daan bàyyi ci ëtt fii ci euh, doobaaleem gii ci euh, pencam mii fi la daan yandu daawul tëju fu waaye mën boo ñëwam faj sa aajo euh, sama sëriñ sëñ Fallou Bosom sëñ Abdou Karim damay faral di wax ne ma sëñ Abdou Karim da daan wax ne sëñ Abdou Rahman ko yéem la ndax diggante ñaar ñi mu nekkoon ndax sëñ Fallou moo ko seexoon ak sëñ Moudou Mamoun sëñ Fallou muy xalifab sëñ Touba sëñ Moudou Mamoun muy xalifab maam Cheikh ñoom ñaar ko ci ne lu dul jeex waaye Euh, euh, yoon wi yoon wi daa defoon yoon wu jógee kër sëñ kër sëñ Fallou jaar kër sëñ Abdourahmane dem Daaru Salaam ba jógee kër sëñ Fallou lu mu la jox boo ñëwee sëñ Abdourahmane jox la ko ba demee sëñ Mamoun lu mu la jox sëñ Abdourahmane jox la te kenn mësu jógee kër sëñ Abdourahmane di wuti kër sëñ Fallou da la war a kër sëñ Mourou loolu euh, suñu borom dimbale woon na ko ci bokkoon na ci yor gum yoroon waa dëkk bi nga xam ne eggoon na ci am ñoo xam ne moo leen joxal dépasse am na kuñ daan wax yaakaar di soo fii nee na bi muy doog a ñëw ci dëkk bi fajar goo xam ne dafa ñëw di rossi ci teen bi gis euh, garab gu ne ñaar taxaw fa nee na mu daal dem ci ba Adama ba rahimahumullahu taala ne nekkoo mooy moo doon borom këram ne ko ndax jàmm daa xew ci dëkk bi ndax damaa gis garab gu ne ñaar a nga fa taxaw mu ne ko jàmm dong la sëñ bi la ñuy xaar mu génn ci jàkka jox leen dépasse nga xam ne euh, loolu moom mënees naa sancal ay nit mënees na la dëkkal waaye di leen jox dépasse moom te noonu la daan dajalee ñi nga xam ne ñoom ñoo fi war a mat dugg néegub góor dugal leen néegub góor ku Eh, takk soxna la ca war lépp moo koy def ku fi masaa am ngénte itam am tudd la ca war lépp moo koy def ku fi masaa am ab dëj la ca war lépp moo koy def moom la nekkoon ak ñi nga xam ne ñoo ñëw waa dëkk bokk na ci itam nag eh, jàkka ji nga xam ne sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo dénkoon borom Daaru Muxti ba muy sanc dëkk bi ne ko defal ma ko fi ba mu ñëwee juróom benn yam fi am fi la doon jullee jàkka jooju bu si ñëwee da koo yeesal defar ko ba mal ni war a mel te moo ko daan jiiteel boppam waxtu yëpp moo ko daan jiiteel boppam muy tàng muy sedd muy taw mbaa muy naaj amutoon euh, waxtu wum du génn ñu ngi nettali bis boo xam ne day taw taw bu méttee méttee metti bàyyi alaaji sànq mi nee na am na ci boo xam ne teewe na ko nee na bàyyi Seex Caam maam la ci man ñëw daal di noddu nee na bi mu noddee ñu toog ab diir mu ne bismillaahi nee na am na ku ca mbooloo ma sax ko ne ko ah sëñ bi taw bi sew tuddi mu ne ko Seex Caam waruñoo gën a gore moom mi xuus ci taw bi dem ba dem noddu comme woote nañ ko wujj nee na daal di jóg tegale noonu mu daan def daal di génn ci taw bi nen am na ci mag ñi koo xam ne daa yor ab parasol tiimale ko ci waaye nee bi mu dóoree parasol bi bi ko bi mu ko dóoree dafa dali fële ne ko kenn du ànd ak sa moromi gor ñuy taw teew taw teew loolu itam beneen leneen leneen beneen jàngate bu am solo mi noonu nee na bi demee julli ba noppi biñ génnee ba ñëw ñuy xuus ci ndox mi yére daa tooy bi ñu ñëwee dañ ko doon weñ keroog wax na fa wax ju am solo wax na ne ñun day ñi ngi doon xuus ndox mi di wuyu ji woote suñu borom di julli ji am na sàmm boo xam ne fi ne ma ngi ci àll ba di tawte te la ko tax a tawte jur gu muy sàmm dong la te jur googee euh, nam fonk juram nga ñun suñ borom war na jaral lu ëpp waxaa ne te sax nag yaar tam ndox muy muy sa yére di tooy moo gën dugg ci bàmmeel muy tàkk kenn ko mën a fay nga xam ne loolu day mel ni kon euh, loolu la nekkoon jaamu yàlla lii dëkk li waroon ci dëkk bi lépp fexe woon na ba am fi mu ne fa 1972 ci la wàccu liggéey sëñ Modou Mbacke wóotu ko doomam taawam. Eh, ne fi ba 2001 wàcc bi liggéey sëñ Mbàkke Abdourahmane mii fi nekk wuutu ko ñaan suñu borom yàggal ko fi tamay koy wër xam naa dañuy tënk jox Baye Mbaye ndax moom dina mën a gën a yaatal incha allah moom mi fekk woon bu sëñ Abdourahmane nekkee ak eh, ci kanam sëñ Muudu ci kanamam sëñ Mbàkke mi ci kanamam lépp dina ko mën a tënk ñu ngi jégalu baax a baax jërë ngeen jëf eh, jërëjëf sëriñ naa Joxaane macha allah rafet na ak malte wa ahsant jasakumullahu xayra wax nga ñu wàccuwaayu dëkk bi wax nga ñu wàccuwaayam ndax bi suñ baa jógee ci géej gi fii la njëkk a tëbaskiwaate te xam naa mel leen tëbaski wute ak tëbaski gam woon ca ca géej ga ay itam fii la njëkk a gàmmawaat ba gàmma ko sax moo waral eh, ay ragal am ci diggante ak nasaraani waaye tam weeru safar wi nga xam ne ci la ñu dégmal nga xam ne mooy bis bi gën a tedd ci ñun fii la ko fii la ko njëkk a fekk kon loolu lu am solo la loo xam ne ku ne war na cee bàyyi xel waaye itam bind fi ay xasida xasida yàqi nii rabi bàyyi saraw ak yaa jumlatal nga xam ne ci la wax naan yéen tubaab yi wax ngeen ne damay jihaad wax ngeen dëgg waaye nag ci sama jihaad génnut ragal yàlla ak xam-xam kon loolu lu am solo loo xam ne euh, wax dëgg yàlla euh, macha allah waaye itam wax nga ñu sëñ Rahmaan ci fonk woon jaam yàlla mooy fi nga daanee la fonk jaamu yàlla ba buy taw ak buy ngelaw ak buy sedd ak buy lépp la yamale loolu itam lu ñu war a mën a bàyyi xel bu baax a baax ndax fi ne am na ñoo xam daanaka. lu ndaw rek moo leen di moo leen di moo leen tax a bàyyi jaamu yàlla lu gàtt rek bu amee rek duñ julli sax asamaan ak muy taw baa muy ngelaw kon loolu am solo loo xam ne euh, war nañ cee royaat baax a baax kon dëkk ngi boo xam ne dëkk bi ci jëmmam ak ki fi nekkoon ay roywaay lañ lu war a mën a bàyyi xel baax a baax kon dañuy njëkkante waxtu yi gannaaw bi ñu santee baax sëñ Seex naa joxaane euh, sëriñ Mbay Juuf nga xam ne fekkee na lu bari bokk ci mag yi dëkk bi xam naa moom moo ñuy dugal nag ci dëgg-dëgg sëñ Abdourahman moo doonoon kan ak itam aw aw nekkinam ci dëkk bi ak itam ab liggéeyam ci diggante ak ñi nga xam ne ñoom nekk doon ci njabootu sëñ Tuubaa gi kon bisimilah sëñ Mbaye auzu billaahi min seytaani rajiim bismillaahi rahmaani xaadim rasul ñu ngi leen di nuyu di ñaanal sëriñ Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy xaadim rasul tey ci kaw suuf di ko ñaanal sunu borom gën a guddal fanam lool mu ànd ak wér hmm. ba li mu sémbal lislaam sémbal ko maamam ji mu àggale ko te ràppal ko te ànd kook moom hmm. ñaan googu ñoo ngi koy wëlbatiku di ko jiwale ci sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mi nga xam ne mooy borom Daaru Muxti ci kaw suuf hmm. moom it di ko ñaanal sunu borom guddal fanam lool wéral ko ba lim sémbal lislaam sémbal ko baayam ba nga xam ne lépp ci yoonu murit la ci ndigal la mu àggale ko te ràppal ko te na ànd kook moom door ñëw nag ci suñu jàmbaar jii di Serigne Mbacke Daba Sarr mii nga xam ne mooy suñu lépp di borom door mënaan tey moom it ñu ngi koy ñaanal li mu sémb te sembal ko sëriñ Touba sémb ko ngir yàlla ak lislaam yàlla na ko suñu borom dimbale ba mu àggale ko te ràppal ko te na ànd kook moom ah, ñu ngi leen sant bu baax ci teewaay bi ngeen teew fii ngir ñëw fii am lu nga xam ne dangeen koy gëstu ngir gën ko tasaare nit ñi gën koo xam ndax nit kët dara gënta farata ci moom la nga xam ne mooy léppam mu fexe ba xam ca dara sëñ Tuubaa mooy suñu lépp kon nag war na noo fexe ba xam ci dara xam lépp yombut waaye xam ci dara loo mën a jàpp lu am solo tey nag ñu ñëw daaru manaan noonu ñu waxee sëñ ceeb daaru manaan ak sëñ abdourahman mii nga xam ne moo ko yeesal si 1944 waaye mi ngi feeñe woon fii nag ci daaru manaan 1907 bi borom daaru muuti sëñcee dëkk bi 1900 magam soxna bu busa mbàkke moo fi njëkk a feeñ 1904 soxna busa mbàkke ak sëñ abdourahman mi bokk lépp bañ demee ba 1907 sëñ Abdou Rahmane feeñ wax nañ ne 1908 jëm 9 10 la sëñ Abdou Khoudous feeñ fii moom itam ndax yaa ngi dégg sëñ Moussa di wax ca wee wa ba sëñ Abdou Rahmane ba sëñ borom Daaru Muxti jotee ndigalal sañ ci Daaru Manaan te muy gas teen bi ñuy wax Maduro mi ngi nii fi ci booram Ndaam yaa ngay dégg muy wax ca woy wa naan ci takku saan la teen ba bënn gaskat yi génn keroog la Cheikh Fer ca guy Ngoraan sëñ Cheikh Abala wax booba sëñ Cheikh Abala moom moo feeña guy Ngoraan ak fe ak fer maanaam ak bàyyeem ween nag moo tombeek sañcëb Daaru Manaan noonu la demee ah, sëñ Abdourahmane moomu nag soxna Fat Ñang mi ko meññ doomi ku wax sëñ Njóogu Mati Ñang sëñ Njóogu Mati Ñang mu hmm. am soxna Fat Ñang ak sëñ Baara Ñang moom Gédé mm-hmm. soxna Fat ñoom moomu nag lañ jox borom Daaru Muxti mm-hmm. mu am ci soxna Fat Cero mi di taawum mm-hmm. amoon ci ku ñuy wax Ibra Fat Ñang maa ngi ci soxna Busa Mbàkke mii maa ngi sëñ am ci sëñ Abdourahmane soxna Fat ñang sax de am na ñeneen ñoo xam ne ñi xam naa dañoo dem ci ndaw moo tax ndax sëñ Cheikh wax na ne am na ci ñoo xam ne ñii daanaka dañoo fer dem ak yu demee noonu. Mm-hmm. moo tax am na am la am la Abdou Latif ak yeneen ak ñeneen. Mm-hmm. waaye uh, gone bu juddoo teel a dem daanaka dañ dul boole ci lim moo tax. waaw noonu la demee. Ah, soxna soxna Fat Cerno. Mm-hmm. sëñ Tuubaa moo ko joxoon soxna sëñ moo roqee Busa. mu am ci sëñ Abdou Karim Busa sëñ Abdou Samad Busa mi ngeen xam. ak sëñ Koso Busa. am na ci ñetti jigéen mhm. soxna soxna a soxna ami soxna ami mhm. ak soxna soxna gàdd mhm. defe naa moom lañ joxoon sëñ Mbàkke astu moo jur sëñ saam soxna ummi waaw so moom lañ joxoon soxna moom moo jur sëñ saam mi taaw sëñ Mbàkke astu sëñ soxna Boussa Mbacke mi nga xam ne moo doon màggi sëñ Abdourahmane mhm. ñu jox ko sëñ Mokhtar Binta Lo mhm. mu am ci maam Asta mhm. mu def taawam moom lañ joxoon sëñ mooy mag ca kër moo sëñ Modou Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir soxna moomi ak soxna Boussa mu tuddee woon soxna Boussa mii ñu joxoon ko sëñ Abdou Akim ca Nasru ak sëñ Cheikh mii di xalifa bi tey kooku mu amaat ku ñuy wax soxna abi soxna abi ñu jox ko sëñ Moustapha Bassirou sëñ Modou Ablaye mii jiite jumaay jumaay jumaay Daaru Minam ji soxna abi moom mooy way juróom mu amaat ku ñuy wax soxna jóobloo ñu jox ko sëñ Fallou sëñ Fallou amoon na ci ku ñuy wax maam ami maam ami moomee defe naa moom benn toom maam ami sëñ Cheikh Awa Balla lañ ko sëñ moo daaw sëñ maam Thierno moom sëñ Cheikh Awa Balla lañ ko joxoon moo jur Moodu Maxtaarum sëñ maam Cerno mee ca Daaru mm. mee ca Bambey mm-hmm. kon noonu la noonu la Cheikh Abdourahmane demee Cheikh Abdourahmane ni ñu ko waxee ah, bi nga xam ne ne 43 jot na boroom daaru jóge daaru Muxti mm. ñibbi àjjana mm-hmm. daanaka ca déwén sa sax matu déwén sa la fa jóge mm. wax nañ ne bi muy ñëw daaru mënaan bi tax ko woon a jóg mm-hmm. biir Bawol la jëmoon am na fu mu jëmoon sëñ Modou Moustapha moo ko gëstu waaye mu xaw ko nëbbu mm-hmm. sëñ Modou Moustapha ne ko demal yeesal mm-hmm. sa gentu baay bee mm-hmm. muy door mën a boo demee ku fa ñëw di la wax dara wax wax ma ko ma wax la ma wax ko la fa indi woon bàyyi ma loolu ko sëñ Modou Moustapha waxoon sañcal ko fii jox ko aw fas bu ñu wax tafaar Abdou Ndiaye sant yorom ko sëñ Abdourahmane bi mu ñëwee fii kër gii dañ koo làkk ngeer waaye sa jàkka ji moom da dafa wulli ji xat boori njaarim la ñu wuti ji ab xat hmm. ñoo mu sàkket ko xat moo jiite jàkka ji 1944 hmm. yooyu mu ko sancee hmm. moo jiite jàkka ji ba 9 février 1972 bi mu fi jógee moo jiite jàkka ji kenn mosu ko ci wut waaw moo doon ilimaan ci moo doon itam daanaka mën nga ne moo doonoon xaadi ji mooy atte lu xew ci dëkk bi ci kanamam la ñuy ñëw mooy atte at ma ñu fi ñëwee ñu ne dañu fi def ab arrondissement ñu indi fi chef de chef chef d'arrondissement première chef d'arrondissement bi hmm. ñu tuddee ko Gallo Fall hmm. daa woowaa dëkk bépp ñu ñëw mu ne leen ah ñoom kat indi nañ fi lu ñuy wax ab chef chef arrondissement hmm. xam ngeen lu ñu lu ñu fi wutee mu ne day seet nit ñi rek nit koo xam ne kii na daal nekk nga ci lu aw jubadi mbaa nga def ko da dane lu yóbbu fak moom mën na mu atte la mën na nga see dem kasu ginnaaw nag yàlla dogal na mu ñëw fi li hmm. ngeen fexe ba bokk ci dëkk moom bu foofu tànkam jaar li hmm. ngeen fexe ba lu ngeen def lu ngeen fa yóbbu mbaa ngeen di wax lu ngeen hmm. nga xam ne moom la Gallo Fall ñëw fii itam dañoo bind dañoo dégg naa tubaab yi dañoo laaj dëkk ku mag ñu ne ndaama fi mag ñu bind ndaam ba ñu indee Gallo ndaam booba ndaam wax dëgg ay ay ñaari kër ñetti kër la woon te boobu boobu sawaan bi ëmb na ko kii mhm. ba galaw fanaanee asamaan seet mu ñëw fi ci sëñ Abdou Rahmane mhm. ne ko dañ maa indi ndaam de man maay chef bi mhm. waaye wax dëgg yàlla daal ndaam ndaam xam naa ne wéet na wéetaay goo xam ne daal su sañoon randu si fii sëñ Abdou dem ànd ak moom ci dem si sëñ Fallu sëñ Fallu ne ko wax na dëgg sañcal ko sëñ Abdou Rahmane ne ko sama tool laa leen di jox du ma leen tool jox tool donga yi sama tool bopp laa leen di jox ngeen def fi li ngeen fi bëgg a def abalu ma leen ko ma maanaam mayu ma leen ko jaayu ma leen ko saroxu ma leen ko dama leen ko abal saa su ma soxlaa sama suuf bu moo ci dégg coow mooy fii ñu def arrondissement bi tey tool sëñ Abdourahmane moom waaw sëñ Abdourahmane képp koo xam ne kii feeñ nga ci Daaru Manaan tudd mi moo ko gàdd tudd mi moom moo ko gàdd ak ju ak gétt la yoon ca daara ji nga xam ne mat ci am asto yoroon mii moo yoroon gétt ga ku fi am doom mu yónnee ñu dem gàtt moo ko moo moo gàtt gàtt gone gu koo xam ne gii nii mat naa magal gone yëpp moo leen dajal magal leen booleeg waa këram ñun ñii ñun ñii suñ génération bi mm-hmm. ñu koy defal mm-hmm. juróom-ñeent fukk la ak juróom-ñaar nga xam ne ñett ñett nu manqué téeméer mhm. waaw docteur bu ñuy wax faal boobu moo fi nekk. 59 60 mhm. waaw. Mhm. gone gu góor gu fi nekk. ba war a takk ba war a wuti soxna may bu njëkk yi sëñ Ibrahima ko gaaw. koo xam ne kii ñëw nga sanc ci dëkk bii moo wutal ay néeg jox la foo ko def wutal la tool boole la ak sa njaboot yor ren ba diwén. ba nga liggéey loo mën a dunde mu door laa bàyyi mm-hmm. am na ñooñ sax daa continuer ñoom mm-hmm. ba ni mu fi jógee waaw baa seen mbocco boog màgg màgg ñu ne ko bay kii mm-hmm. noonu ko Seexuna Joxaane waxee noonu la demee boo soowee sa jabar wala yu demee noonu moom moo noonu àttekat bi koo waxee sa jabar boo bu leen woowee bu ñuy ñëwee danaan soxna su fekkente ab joxe dee tax nga ngeen di xuloo bu ko laajee dara loo soxla ñëw laaj na bu mhm. ko dara. loolu soxla ñoo laaj moom. Mhm. loolu nag man li may def kat mooy. Mhm. du leen nëbbu sama dara. lu ma am bokk ak yéen lu waaye am na ko téye waaye lu ma am bokk ak bu gerte gi ñoree ab hangar la def fii boo xam ne bii dañ ci joxe jiw ku jox jiw bu déwénee. nga delloo si bu déwénee boo boo ñëwee mu joxaat la sa jiw nga ci benn intérêt. di ko dimbalee nit ñi noonu la doon dundee nit ñi koo xam ne kii toog na ci jàkka gi ñaari fan ñetti fan gisu ko mu ne ana diw ñu ne nanga mu ne nit seetal ma ko ba xam ñu seet ko su fekkente ne dafa amul mën a di moom mooy demal boppam ba àgg ca kër ga la war ca kër ga lépp mu def ko moom moom loolu moo doon ci koy Cheikh Abdourahmane nii ko naa Joxaane waxee it yooyu jamono jooju bokk wute naak léegi ndax booba sëñ Fallu mooy xalif général des Mourides ndax benn naat rek la fi am sëñ Mourou Moustapha sëñ Mourou Moustapha dem mm-hmm. sëñ am sëñ sëñ sëñ Fallu nekk fii mm-hmm. fonk ko lool nag sëñ Fallu nekk fii di xalif général des Mourides lépp àdduna ne ci loxoom mm-hmm. sëñ Modou Mos sëñ Modou Mamoun nekk Daaru Salaam gii di xalifa maam Cheikh Anta lépp yi àdduna ne ci waaye mboolem sëriñ fi naar yi ku ñëw sëñ Fallu jëm ci sëñ Modou Mamoun da ngay jaar suñu suñu Abdourahmane mhm. ba mu defal la li mu lay defal jox ko nga door a jaar suñu Modou Mamoun mhm, ba ci Cheikh Daay mhm. Cheikh Daay sama kër baay gi daan daal bu ma ñëw mbooloo mi mi muy daanaka saako ceeb la ñuy di togga <laughs> waaw ndox mbooloo mi mu daan àndal bu jógee sëñ Fallu day fii ñaari fan door dem door dem door dem sëñ Modou Mamoun moom Cheikh Daay waaw yeneen naar yi nag fu mu naar jógee bu jaay balaa jëf jaar sëñ Abdourahmane noonu la doon dundeek nit ñi mm-hmm. koo xam ne kii faatu na daaw ay nit ñooy ñooy ñooy sang mm-hmm. ak ñiy gas armeel yi ku faatu càngaay li ak mburu yooyu ñii def mm-hmm. yépp moo ko gàddu te ñiy sang itam moo leen yor seen lépp duñ laaj kenn dara waaw noonu la nekke noonu la nekke woon ak nit ñi noonu la daan dundeek nit ñi amul lenn loo xam ne lii nit dana ko kii mhm. te te te du ci te te loxoom dugg ca te loxoom dugg am na bis benn waay bu ñuy wax maître sëy mhm. maître sëy mhm. ab huissier la woon nekk njaareem daa ñëw ci sëñ Abdourahmane ne ko dañ ma yebal ci yow ma soxla la sëy lañ may wax ab huissier la njaareem laa jógee mhm. dañ ko ah, ah. Ah, bëggoon nag mbooloo mi jóg ma la li ma wax sëñ bi ne ñii de toogal de ak ñoom benn lañ amunum na bonte mhm. amunum na bonte sooy ba nga wax li ngay wax rek mun ne ko mu ne ko naar sàngam ci mbàkke mhm. nee da nga ko yoreel nangam ak nangam ak nangam jox nga ko bi sàngam poosé jox kërantu bi sàngam bu fóoti man nag de maay ban iche man su ma ñëwee faaw danaa yóbbu dara sëñ Abdourahmane na dënn ba ko tey ngaa xoolaat kayit yi man fii may wax ak yow yaakaar naa ne yàlla rek la ameel bor mu door a soog xool kayit wax weneen tur sëñ Abdourahmane ko yaakaar naa noonu lay war a mën a de <laughs> waaye man man man yaakaar naa may wax yow mm-hmm. yàlla rek la yoreel loolu moo doon jikkoom mhm. doon nit koo xam ne kii nag mhm. ku wopp mhm. mu seet si la la ca war mu def ko même so euh, jigéen euh, koo xam ne kii sa sa jabar da ngaa am moom problème sax <laughs> moom moo yónnee jëli ko baa mu taaloo teem dem jëli ko yooyu yëpp da ko daan doxaleeg nit ñi mel ni nit ñi daal noonu ma la ko waxee rek noonu la doon dundeek ñoom du umpalanteeg ñoom ci dara lépp lu muy def da koy diisoog ñoom saa su xëyee génn fii lay toog ci pénc mi poos yi da koy duy xaalis ba mu fees ku ñëw mu jox la ku ñëw mu jox la ku ñëw mu jox la ba mu fiy jógee ñaari néegi ñax la fi bàyyi te ku nekk di gën a daaraam yi ndaamaatu ñaari déew yi na fa newoon fetto benn jëwriñ ña fa fii ñuy wax sexew gi moo doon daaree xureel benn jëwriñ ña fa newoon muy ñeenti jiw ñuy bay gerte dugub ji du jeex waaye lu mu am bokk koog nit ñi rek moo doon moo doon moo doon ab noonu la doon dundee nit ñi képp koo xam ne kii ci waa kër sëñ Tuubaa waaye ngay tam amoon naa yow relation bu rafet bi sëñ fa luy nekk mësta mhm. santaane benn santaane boo xam ne day wooye Daaru Muxti mhm. santaane bi muy santaane itam jëm ci Daaru Muxti Daaru Manaan la ko waa sëñ sëñ fa wax waa Daaru Manaan ñëw ñëw ñooy présenté Daaru Muxti waaw mhm. waaw waaw noonu daal ah, ci gàttal noonu noonu la noonu la doon dundee ak nit ñi. Mhm, noonu la doon dundee nit ñi. Mhm. nit la koo xam ne kii itam ak ragal yàlla am ak ni muy jaamoo yàlla mu mhm. dong yi da leen daan wax na boo na bu liggéey bi jotee ku mënta boole koor gi ak liggéey bi bàyyi liggéey bi te woor waaye sama liggéey bi kat kenn bu ko bëgg kenn taabentaloo naan liggéey bee tax bu wóoruma loolu man duma ko digg diggee kenn lu ngeen liggéey saa su waxtu yu jotee ak fu mu leen mën a fekk ci waar wi mm-hmm. na ngeen sëpp seen i gopp julli mm-hmm. waaw waaye kat ginnaaw da ngeen wax ne da ngeen di wut yàlla mm-hmm. kuy wut yàlla da nga cay boole la yàlla santaane waaw mi ngi fi jógee 9 février 1972 sëñ Modou Mbacke taawam bu baax wutu ko fi moom itam tànkee sëñ Abdourahmane jaaroon rekk la jaar bi sëñ Modou Mbacke ñëw sama kër gii ngay gis nii mu ne sama gannaaw mhm. maa mujjoon fii mhm. diggante sama kër gi ak raay bi tookaru ñaambi la woon mhm. sëñ Modou Mbacke moo yokk dëkk ba mu dem fett moom itam lu foofu sëñ Abdourahmane tegoon tànkam rek la ko teg liggéey fi liggéey bu kenn mosut a gis yaatal dëkk bi yaatal nit ñi doonoon nit ku ak xam ne sëñ Abdourahmane mu sotti la rek ndax na na na sëñ Abdourahmane doon dundee noonu la doon dundee bëgg nit ñi lool nit ñëpp jox ko bopp moom itam yàlla dogal na mi ngi fi jóge onze juin deux mille un sëñ Modou un la fi jóge sëñ Mbacke dafa saar mi ñëw wuutu ko yàlla fi gën a yàgg lool sëñ Fallou Galas mi ngeen àndal ndax lii lu am solo la mel na ni li tax seen télé bi seen rajo bi jóg yi ci ngeen nekk feeñal yoonu murit ak feeñal kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ndax ñi nga xam ne ñooy seen réew yi jóg roy ci ñoom kon yéen itam ñu ngi leen di ñaanal ba fa ngeen bëgg a àgg yàlla àggale leen fa ba teg ci sax loo xam ne seen jotu àggu ca woon yàlla mën na ko yàlla na ko def guddal seen i fan may leen li ngeen bëgg lépp ndax lii dara kenn kenn mënu koo fay kenn mënu koo fay sant nañ leen bu baax jaarale ko sëñ Fallou Galass Sylla mi ak mboolem ñi ngeen ko àndal ñëpp nag mm-hmm. xamul ñëpp waaye maasale na ñëpp suñu xool sedd na ci yéen. wax na kon se ñu ngi leen di nuyu te tey sant bu baax mm-hmm. te xam ne njabootu sëñ Abdourahmane gi ñu ngi sant bu baax njabootu Serigne Touba gi di ko tàmbalee sëñ Moudou Moustapha mm-hmm. ndax sëñ Moudou Moustapha loolu mu defal euh, sëñ Abdourahmane borom daaru bi muy sanc daaru manaan sanc lu ko boppam sanc lu ak njabootam ndigal la fi amoon doon ko fi def ba ndigal la jeexee mu dem kon sëñ Mourou Moustapha bu yëkkatee Daaru Manaan ko teg ci loxob sëñ Abdourahmane loolu ak baax la ndax mënoon na ko defar doomam wala ab taalibeem bàyyi ko te boobaa it kenn du ci mën a wax dara kon nag ñu ngi ko ciy sant bu baax baax ci jëf jooju ak nee mu taxawi sëñ Abdourahmane noonu la ñuy sant nag mboolem xulafaa yi topp ci ginnaawam mm. eh, Serigne Fallou ko fonkoon Daaru Manaan fonkoon sëñ Abdourahmane eh, cër ba nga xam ne moom la la sëñ Moudou Moustapha dafa ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ba nga ñëw da nga ko feddali dëgëral ko waaw sëñ Fallou euh, arrondissement bi biñ ko fiy def dafa yabal administration bi leen dem leen ci sëñ Abdourahmane moo demee ngeen waxtaan ci moom hmm. bañ ñëwee lañ ci waxtaan ak moom mu jox leen ci ndigal ca lañ ko doog ko mën a defe waaw sëñ Abdoulahat itam moom kenn du moom moom itam wax dëgg yàlla taxaw na daaru mën naan lool wax dëgg yàlla ci waxoon ne cër itam wax dëgg yàlla njabootu si Abdourahmane ki fi nekk ndaamaatu gi bi mu koy jël dafa ñëw ba ci sëñ Mour mboowu daa ñëw waxtaan ceeg moom ba eh, daak ba ba juboo ci mu ci ci la doog a demee sanc ko jox ko njaboot gi marché Manaan bi sëñ Abdoulaat moo ko fi def waaw eh, école publique bi ñu njëkk a sanc fii ci Daaru Manaan sëñ Abdoulaat moo ko fi def waaw kon ne moom wax dëgg yàlla taxawu ne sant nañ bu baax la ca la topp ca moom ñoom ñëpp itam sëñ Abdou Khadir sëñ sëñ Saliou itam moom itam kenn du moom sëñ Mbàkke sëñ Abdourahmane mi waxuma la dara daaru ma naan sax waaye da koo far sax dolli ko ay responsabilité joxaat ko fi ay bare bëree bëri di ko toppaloo ngir wóolatiku mu am ci moom te loolu lépp wax dëgg yàlla seenu baax la ndax am ci kenn ci ñoom ku mës a di jéem a wane fi doole wala sañ-sañ ci daaru ma naan kenn ku ci nekk wërngaal nga waa daaru ma ak njaboot si Abdourahmane Kanoor nii lañ ba sëñ Mouhamadul Mountakha jaar sëñ El Hadj Baare sëñ Mouhamadul Lamine euh, sëñ Cheikh Mati lay ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ba nga ñëwee foofu nga jaar kon nag ñu ngi leen di sant bu baax. Euh, di ñaan yàlla yéen itam waa euh, ñi ñëw fii télévision bi ñu ngi leen di ñaanal yéen itam li ngeen di def lépp yàlla leen jàppale ba seen liggéey li ngeen di fi ak yàlla na leen fay àggale si dara Xaadimu Rasuul. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. ñu ngi sant daal bu baax. kon day mel ni Euh, jotaay bi am na solo lool muy jotaayu kàngam 18 euh, sama 18 kàngam te ñu ngi woon fii ci Daaru Mannaan àndoon ak njabootu sëriñ Abdourahmane Mbacke moom borom Daaru Muxti tàmbalee kàddu yi ci Serigne Modou Makhtar Mbacke moom Serigne Abdourahmane ak Serigne Cheikhouna Joxaane daanañ Serigne Babacar Diouf mi nga xam ne magum taalibe la woon fii ci kër gi doon taalibe Serigne Serigne Abdourahmane Mbacke moom moom Daaru Muxti kon liñ fi dégg lépp euh, di lu am solo loo xam ne. Eh, waxuma la yoon waaye jëmmi réew mi ci la Sénégal war nañ koo xam bu baax a baax waaye tamit sëñ Abdourahmane doonoon ab tab doonoon jàmbaar doonoon itam ku fegu ci jaamu yàlla ak njabootam kon ñu ñaan yàlla doole ay leeram yokk ay maqaamaam te taas na ci barkeem yàggal fi lool sëñ Daba Sarr mi nga xam moo koy wuutu di siyaare bu baax itam sëñ Modou Maxtaan Mbàkke bii nga xam ne moom lañ àndaloon jotaay bi di ko sant bu baax di ko gërëm te di ko jéggulu kon ñi nga àndoon ak yéen Assalaamy TV Assalaamy FM 99 point 0 fii ci Daaru Mannaan ci 18 safar 18 kàngam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu